Mbadiar TV Mbadiar TV seet seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 dal ci kaw ca kanam abonné te bés bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Médar TV daal émission Mbaj Mbawoor ca kaw ca kanam su ko defee dajale mbooloo yombul kon lii su amee nee na sëñ Babacar de yow yaa ko forcé waaye waru ci woon a teg dara ndax kat say wax doy nañu ci lépp kon fa tabaarakallaahu ñu gi sant bokk yëpp di leen gërëm fa tabaarakallaahu fii waaw Serigne Moustapha Seye Babacar mu ni nga joxe ñaan waaw sëñ Moustapha mu ni ginnaaw ba nu la nuyoo di nuyu itam mbokk yi fi daje yëpp. di sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad di sant tam daam mi nekk ci dëkk bi ak ceerno rakkam yàlla dogal ñu ànd ba niseer lii def bii ñu koy def nee na ñoom ñëpp ñu ngi ci wane sunu cant di ci wane tam sunu ngërëm. ak sunu mbégte lool. muy mbégteem lislaam. muy mbégteem lislaam. yàlla nañu ko ànd yàgg a taxawee. nee na yàlla nañu ko yàgg a di ko taxawee amin. di wax Serigne Mbaye nag ne ko. nee na sëñ Babacar Moustapha mu ni mi lay wax nii. lii nga joxe ñaan gi. lii nga joxe ñaan gi. doyloo naa ko ba fa kanamu yàlla. nee na moom doyloo na ko ba fa kanamu yàlla. ndax man kat fu mu fu mu nekk fu mu nekkul. nee na moom yow foo ne ak foo nekkul. maa ngi koy xoole man bëti Alaaji Abdou Aziz. nee na mi ngi lay xoole rek. moom daal dama naan rek moom jam xanaa surtout Alaaji Abdou Aziz waroon na doon. moom daal moom day wax ni daal xanaa yow surtout Alaaji Abdou Aziz dong nga war a nekk. billaahi ni ma bëgg Alaaji Abdou Aziz. na daal mi ngi giñ ci yàlla ni mu bëgg Alaaji Abdou Aziz noonu laa ko bëgg noonu la bëggee Babacar ni ma ko doyloo ni mu ko doyloo moom tam ni laa ko doyloo ni la doyloo Babacar ni ma bëgg ci ah, la yàlla wërsëgal Alaaji Abdou Aziz nee na la mu bëgg na ci la yàlla wërsëgal Alaaji Abdou Aziz ni laa ko bëggee noonu tam la bëggee ci moom mii ci Babacar la ko yàlla war ak baayam ak barke maamam ak barke maamam yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla boole defal nañu ñaan gi sëkk sëkk nee na doyloo nañu ñaan gi sëkk nag jërëjëf jazakum laahu xayran jërëjëf jërëjëf sëy mi ngi say bokk mënalee te mënuloo ko sa bopp su la say bokk mënalee te mënuloo ko sa bopp. yombul yombul de. yéene lal ko. nee na yéene nag lal ko. yal na leen yàlla fay aji yéene nee na yàlla mi am fay daal yal na yàlla fay leen seen yéene yéen ñëpp. li ngeen yéene ci fii. li ngeen yéene ci fii. wax dëgg yàlla. nee na daal wax dëgg yàlla. bu xool di kontaan. bu fekkee ab xol de dana kontaan. kontaan kontaan dañ ci wàllu islam. moom kontaan na ci wàllu lislaam kontaan na ci ci Madoune Penda bi nga xam ne moom lay njëkk a def jàkkaam ja nee nañ jàkkay ah, kii la woon ah, jàkkay bant nee na kat mi ngi kontaan ci jàkka ja nga xam ni maam Madoune Penda moom la defoon mu nekk jàkkay ah, maanaam salaan rek nga xam ne bant yiir la ko sampe woon nga xam ni bant yiir la ko wëralee woon mu jóge waat fa dem fee ca ca soowu ba mu jóge waat fa demaat ca soowu ba defaat fa jàkka defaat fa jàkka fii mu ñëwaat fi mu ñëwaat fi ay doomam defaat fii ay doomam defaat fii jàkka kon jàkk ji mooy ñetteelu jàkk yi madun pend yi mu taxawal kon daal nee na jàkk ji mooy ñetteelu jàkk yi madun pend ju taxawal ci kaw suuf nga xam ne nii sama bàyyi da daan jóg fii dem ci Serigne Alioune Ba topp ci moom nee na nag bàyyi la ba daf daan jóge fii dem ba ngumba topp ci ginnaaw maam Serigne Alioune mu di ko jiite julli mu mel ne kon njëlbeen du réer mu mel ne kon daal ak njëlbeen du réer de mu mel ne it puso bi réerul mu ni mel ne puso bi tam réerul sëñ Mbaye li nga xam ne moom lañ ko teg tem nangu ko nee na sëñ Babacar li ñu la teg ca nga nangu Yalla yàlla la ko jëkk a teg nga nangu ko yàlla moo la ko jëkk a teg nga nangu ko nga defaat ko ci kaw bokk nga defaat ko tam ci kaw bokk nag maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax nee mi ngi sant bokk yëpp bi baax ci li leen gërëm maa ngi gis léegi bi nga xam ne koy tàmbali sama bokk yoo xam ne ñoo ngi ca xelli nee mi ngi gis léegi bi ñuy commencé rek ay bokk yu dëkk ca xelli di sama doomi ndey di ay doomu ndeyam ñu bokk deret ñu bokk benn deret ñu bokk ci kër Cheikh Ibrahim ñu bokk ci kër Maam Cheikh Ibra jóge ci kër Cheikh Ahmad Bamba. ñu Cheikh Ahmad tam Bamba. kon fekk fi wa kër Cheikh Ahmad Tidiane. kon fekk fi wa Cheikh Ahmad Tidiane kon kat dafa melne yalla nanguna kon dafa melne yalla nanguna yalla ko yalla nangu. jërë ngeen jëf. mu ni li ci des ñu mottali ko ci li ci ñu ko place ba. dafa ñaari bu ci sànni mi ngi nuy bokk di di balu ak kër gi yaakaar naa daal mi ngi sant yàlla parce que kër gi lépp luñ fi tef ci ab ciment yàlla dogal na ci loxoom bii la jaare moo ko defar. la ñuy jox lépp maay jënd lépp. moom la ñuy jox lépp mooy jënd matériel ba mooy tabax tabax yi. keroog bi ñu fi indee ciment. bi ceer dani bu dul jàkka day. bu mu dugg ci kër ga waaw ah. dañu ko ciment boobu ñuy indi day su fekkee jëmul ca jàkka ja bu dugg ci biir kër gi ndey Fall yaayu xale yi loolu wax kon daal soññ nañ ko ci nee keroog ba waxee mu ni ko daam lépp loo fi mën a def ca defoo jàkka ji defoo li gënal sa baay de comme nee na la ab ciment bu fi dugg mukk ci lu dul jàkka ja nee na garage de la bëggoon a defar waaye papaam ba mu ko waxee da caa génn de ni ko kon ba mbay di ko defal la sa baay wax moo waral jàkk ji tey mu ni man de duma la ci laaj dërëm mbay wax ko loolu seet su ma ko mënoon dama koy defar comme loolu la wax nan ko def foofu dara du wees nee na mu ànd ci ak moom tam ci xol bu sedd defar lépp wax ko tam ñu ngi ko war a wax ñëpp ñëpp jàpp ci yàlla sottal ko kon nee na ñu ngi koy ñaanal ndax lépp kër ci moom la de nee na loolu Babacar mu ni mënu ko bañ wax fii la yàlla dogal muy place bi te nag lu mel ni nee na moo jiitu woon ci kaw suuf nee na awalu baytin udi ali naas allazi bi bakkata ne nee na néeg bi yàlla jëkk samp ci kaw suuf القران واخنا ني كات كابا غا نانا نات باتاي ني ني لا رك ني لا دامي يونت يالا ادم نانا يونت يالا ادم سو امون غوبي موم لاي نات سو امون غوبي كات موم لاي ناتي يونت يالا ابراهيم كات سو امون غوبي موم لاي ناتي واي نانا نانا غيس نين ñar موم لا نو يالا خلالون موم لا نو يالا خلالون nee na yontu yàlla Adama dafa tëdd ba guddi yàlla wax ko ni ko tabaxal ma ab néeg fekk néeg bi kat malaayka yi ñoo ko jëkkoon a tabax waaye comme àdduna la moom mu yor jikkoy àdduna rek day dem barab ba kenn dootul xam fan la néeg bi ne nee na yi ñoo ko jëkkoon a tabax nee na bu dikk rek digganteeg ba jiitu. ginnaaw sa diggante ak yonent ba la jiitu. dana nekk juróomi téeméeri at junni nekk juróomi téeméeri at wala junni at. loolu tabax bu fay taxaw du du du nee na loolu tabax bu fay taxaw di continuer kat du yomb. waaye nag yonent yàlla Adama ba mu ñëwee. yàlla wax ko ni ko tabaxal ma fii ab néeg. waaye nag xamul fan la koy tabax. waaye nag tëdd na ba guddi. mu gis ak leer. moom mu topp leer ga. ba ci place bi bi ñëwee ba ci place bi mu gis leer gi di wëndeelu rek di wëndeelu rek di def benn carré bu jógee ci koñ bee ñëw ci koñ bi demaat ci koñ bee dem ca beneen koñ bi mu xam ne kon fii la nag pexe bi ci topp nee na pexe ba ca topp daa dem ut dóom daa dem ut ab dóom di ko wis di di ko wis fa leer ga jaar ba bët setee ba bët setee moom ko nekk jigéen nag mag ndaw nee na gone yaag jigéen ñaa mag ñaag ndaw ña ñëpp ku ñëw gis ñu suy doom ku xëy suba rek daal di gis daal ñu suy doom bi wërale ko ñu xam ne kon foofu kat fi la fondation ba war a jaar ñu daal di commencé di gas daal di koy natt muy néeg booba nee na yonent bu masaana ñëw rek nga tombe ak mu màggat wala sax nag mu ràpp nag yàlla nag ci ay pexeem wonat lako nga tabaxat ko ba ci yom ci yàlla Ibrahima moom nag mo ci gën a siiwle moo ca gën a siiw nag wax na ni yoon ci yàlla Souleymane nga xamni gangor gàngoor ga ko daan topp jéggi na doyo bo boole won gangoru buri àdduna yëpp seen fas ak sen gilemi wala sax nak sen auto ya so len dajale won du jot mukk gangoru yonti yalla sulayman ca tukkeem ba nag waaye nag ca tukkeem ba mu rombu Makka nak mu rombu nak Makka rombu Kaaba rombu romb Kaaba ga Kaaba ga daal di joy Kaaba ga daal di jooy jooy yu méttee méttee di jooy jooy yu méttee méttee yebal jibril ni la ma kaaba ga muy jooy yàlla nag daal di yebal jibril ni ko laajal makka kat kaaba gi lan lay joy dama xamni man ni ma toll ci yàlla damaa xam kat makka kaaba gi ni ma tollu ci yalla yonent yi fi jaar yëpp mun ma sargale Souleymane mii romb jaaru fi sax nee na nag ba Jibril demee wax ko Souleymane ni ko yow Souleymane daf nga erreur de ndax kat néeg bii nga passé léegi yonent bi mas a jaar benn nga tombe nga beesalaat ko wala bu fekkee fekk nga ñu beesal ko tam yow di ko tawaaf wër wët ko mu wax ko ni yàlla day yàlla day ci sunu sët yi ci sunu sët yi dana dana bind benn benn doomu aadama boo xam ne dana ci bind benn doomu aadama boo xam ni su dikkee su dikkee ñun ñëpp suñu nguur yëpp day folleeku ñun ñëpp suñu yi day wàcc ñun ñëpp suñu maqaam day wàcc ñëpp suñu alxuraan day ñun ñëpp jin amoon yëpp day jeex nee na ñun ñi kenn ku ne ci ñun dafa am ñu la topp nee na moom su boobaa moom mbindeef yëpp ñooy àndandoo topp ko. su dikkee su dikkee. moom day dina dina ko tawaaf. moom day dina dina ko tawaaf. yàlla dana dogal dogal nag ay tawaafi tawaaf. yàlla nag dina dogal bu boobaa tam ay tawaafi tawaaf. ba ilaa ba ilaa yawmal xiyaam. ba loolu moo moo moo moo dalal moo dalal Kaaba. nee na loola moo dalal Kaaba ga. léegi nag jàkk joo gis. léegi nag kon ginnaaw loolu jàkk joo fi gis rek. ci ci néeg boobu la bàyyeekoo. ci néeg boobu la bàyyeekoo. ci néeg boobu la bàyyeekoo. la tax mu mel nee mu mel. la tax nag mu mel nee mu mel. dañoo dem ba mu yàgg. dañoo dem ba mu yàgg. ñu ni dee soppee ko soppiwaat. ñu wax ni ah lii kat buñ ko dee soppee ko soppiwaat rek. dañu dem ba dugg ci dem ba mbiri àdduna dana ci dugg nag. di ko tabaxe or. kon di ko tabaxe ay or ak. wala jamaa wala jamaa. te te loolu te loolu tax ko woon a jóg. nag bu boobaa loolu du ko woon tax a jóg. léegi nag bâtiment bi comme suñu ko bàyyee noonu. léegi nag comme bu ñu bàyyee bâtiment bi mu nekk noonu. sama classe bi day jóge Sénégal. nee nag classe gi day jóge Sénégal gëm foofa lool gëm foofa lool. sopp ko lool sopp ko lool. boo nee soo nee cëpp rek. gis ni sa kër sax ko dàq. gis ni yow sa kër sax moo dàq bërëb bii. boo seytaane dana la nax. oh mooy tul seytaane dana oh la nax de. ndax nga cay teg mooy. ndax kat la nga cay teg sam xel mooy. xanaa du xanaa du man de lii laa doon dégg man xanaa du lii moom a tax a jóg ñëw fii. bâtiment boo xam ne sa sa toilette sax ko dàq. bâtiment boo xam ne yow sa toilette sax moo ko dàq. te kenn sañatu koo dikki di ko defaraat. te kenn sañatu koo beesalaat di ko defaraat. te doomu aadama noonu la bindoo. te nag doomu aadama nag noonu la bindoo. moo tax nag. moo tax nag. ñu jël benn morceau. ñu jël benn morceau. boo xam ne juróom-ñaari milliards lañ koy. boo xam ne juróom-ñaari milliards lañ koy liggéeyee. dar koy muuree. dar koy muuree. dikkee soo dikkee morso boobu nag morso booba mooy sutura si mooy sutura sa waaye buñ ko muri woon nii waaye buñ muri woon dañuy xanaa du dañuy wax xanaa ko du lii de morso boobu morso booba nag mooy sutura sa foo mën a jóge foo mënti jóge boo dikkee sa cofeet day yokk sa cofeet day yokk rek sa bëgg day yokk sa bëgg day yokk ndax morso booba ndax morso booba te at mu jot nag te nag at mu muy doon doon juróom benn milliard li muy juróom benn milliard at mu jot dañu koy soppi at mu nañu soppi ko mu ràcc beneen mu kon nga xamni kon lolu kon nga xamni lolu kep ku yàlla wërsëgal lii. war nga dolle sant yalla bu baax a baax. nee na wax ci njàmbaaru. Mamadou moomu. nga xamni ni ñetti jàkk ci bi neena day firndel wax jim fi wax léegi rek. ndax uh, lu am solo ndax kat wax ju am solo la. ñaari yu mag yu daan nee na mag ñi dafa am ñaari wax yu daan wax maanaam nitu yàlla maanaam nitu yàlla day dem bëréer day dem bëréer ñu di ko wër ñu di dëggit ñu di dëggit dem bëréer day dem bëréer ñu di ko wër nee na mu ni ko nag waaw nan la di wër nitu yàlla ak nan lañ koy gise mu ni soo ba gis kenn xel dem ci yàlla. sa dem sa xel dem ci yàlla. yéen jàppel koo comme nitu yàlla. waaye boo nga jàpp kooku comme nitu yàlla. ba ngay gis keneen. ba ba ngay gisaat keneen nag. ñu di dëgg nag. ñu di dëgg nag. dinañ ko seet ko mujjoon a gis. ñu ni nan seet dëgg moom fan ko mujj a gisee. kon ñun dëgg bu ñu kon daal ñun bu ak dëgg réeree. nan dellu ci mag ñi. nan delluwaat ci suñu mag ñi rek. ndax foofu lañ ko mujjoon a gisee. foofu lañ ko a gisee. mbooloo mi bariwul. ca nag nee na mbooloo mi day bariwul de. Euh, jàkk ji xëy na rëyul. waaye nag euh, àndoo àndandoo ak mag waaye nag àndandoo ak mag ña. mooy tax mu am loo xam ne nag. tax nga am loo xam ni. jumaa ëpp na ko. jumaa ëpp na ko. boo demee sax waaye boo demee sax jumaa ja amul li mu am moom mii. ndax secret bii ñu ko bind. moo nekkoon ca Kaaba ga. moo nekkoon ca Kaaba moo nekkoon ci sawee Seydi Hadji moo nekkoon sawee Seydi Hadji Malick. ba ca Tiwaawan. moo ca jumaa ja. moo nekk ci sawiya ba ca Ndar moo nekk ci sawiya ba ci Tiwaawan moo nekk ci sawiya ba ci Tiwaawan mboolem muqaddam yi mboolem muqaddam yi boo xam ne taxawoon nga ak Seydi Hadji Malick boo xam ne taxawoon nga ak Seydi Hadji Malick bu fekkee am nga sawiya wala jumaa wala jàkka bu fekkee daal am nga sawiya wala jàkka su fekkee góor ga déeyoon na la su fekkee di day góor ga déeyoon na la moo nekk ca xeer moo nekk ca xeer wa de nee na maam Serigne Aliou nag dafa jege woon Cheikh El Hadji Malick lool jeexoon ci moom tàkk nee na benn diggante rek. laa teqali ko alaaji Malick. laa teq mas a teqale ko ak alaaji Malick. mooy ba mu demee Makka. mooy ba mu demee Makka. Mm. waaye li ko jiitu. waaye la ko ca ndeyi daaraam. ca ndeyi daaraam. la ande. la ande woon ak moom. ba muy dem Makka. ba ba muy ma leen ma dénk. dégg ko la mu koy dénk. ba mu dikkaatee. ba mu dikkaatee. ñu korosé waat. ñu korosé waat. ba keroog. ba na. muy wuy ji boromam muy wuy ji boromam. Mm. nee na bi ñu Seydil góor góor gu ni wax sëybatu Fall. moom mom la jox mom la jox ay leetar. mom la jox ay leetar. àllarba àllarba. ni ko jaaral ngumba. niko nak nga jaar ngumba. jox ko Serigne Aline. Serigne Aline Ba. neko nak na fi jullee ci juma. bobu ñu kumba re amu ko so juma. boobu ngumba amul juma. boobu ngumba ko nag soo fa jógee nga jall pal jox mam rawan leetaram. jox mam rawan ngom leetaram. niko tam na fi jullee ci juma signaler bi mu jotee lettre bi ci àllarba ja nee na maam Serigne bi jotee lettre am ca àllarba ja dafa daal di fanaan Tiwaawan dafa daal di dem rek moom fanaan Tiwaawan di góor gi Moussa Niang bu mag di góor gi Moussa Niang bu mag ma ndax ñaar lañu ndax kat ñaar lañu ba mu waxee signal signal Malick signal di ñëw ba mu waxee maam Alaaji Malick ni ko maam Serigne de egsi na mu ko xamoon naa ni buy jot lettre mu ne ko man xamoon naa ni Serigne Aline buy jot sama lettre daal di ñëw ñu nekk fa nag ñoom ñu nekk fa góor gi Abdou Fati Niang góor gi Abdoul Fati ak góor gi Youssoufa Diop ñooñu ñooñu ñëpp maam rawaan maam rawaan bu ñu julee juma pare ba julee juma ba noppi ñoom la Seydi Hadji Malick tëjoo ñoom la Seydil Hadji Malick ànd ak ñoom tëju ak ñoom dénkaane li muy dénkaane lépp di leen di dénk nag la muy dénkaane lépp maam Serigne alin daal di bind nag dénkaane yëpp boo demee ci Serigne Omar boo demee ci Baye Omar léegi daanaka ñaari ñaari at moo ko manqué téeméeri daanaka kat góor gi fii ñaari at dong moo manqué moom téeméeri waaye waaye boo léegi mu tari la lettre waaye soo waxoon léegi mu tari la lettre ban bindoon dénkaane lépp dénkaane lépp tax noonu li tax nee na ñun de am nañu sens. ba mu dikkaane ba pare. ba mu dikkaane ba noppi. ba ñu génn dem ba ñu génn dem. dafa woowaat signaline. dafa woowaat maam signaline. joxaat bu gaa yooyu fekkee. daal di koy joxaat beneen dénkaane boo xam ne bokkul ak ba mu leen boole woon joxoon na leen ko ñoom ensemble. dénk ko nag li mu war a dénkaane sëñ Babacar si lépp nag. daal di koy dénk li mu war a dénk sëñ Babacar lépp wax ko ko. lépp nag lépp nag. secret boobu foofu la. nee na secret boobee foofu ko. Diop waxoon nee na la alxaaji Yusufu Diop waxoon nag nee na ku jëlee dara ci mag nee na képp ku jëlee dara ci mag waaye bur nga téye ko de ndax séddale jeex na ndax kat séddale bu jóge ca mag ña jeex na taxul mu wér ca nag taxul mu wér nee na yombatul taxul mu wér am yombatul bàyyilul Sëriñ Aliou dara nee na Seydil Hadji Malick bàyyilul maam Sëriñ Aliou dara ci lu mu ko a jox xilaafa gi sax wax na ko xilaafa gi sax daf ko wax moo tax xasida ba Sëriñ Aliou def moo tax xasida ba maam Sëriñ Aliou def def ko ci saxaar gi jëm Tiwaawan. def ca biir saxaar ga jëm Tiwaawan. boo ko jàngee rek. boo ko jàngee rek da ngay xam ne kii. dangay xam ne kat maam Serigne mii. fu wër fu mu am na fu wër fu mu teg ay tànkam. mu ñëw nag bokk ak sunu maam yi ak sunu maamaat. mu ñëw nag bokk loola ak sunu maam yi ak maamaat yi. loola di dox ba fii rek léegi si. loola di dox ba. egsi fii tey bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nee na bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee ni lu jamono naqari naqari lu jamono bi naqari naqari bon bon bon bon bon lu mu bon bon bon dana am ñoo xam ne ñoom dana am kat ñoo xam ne ñoom ci dëgg rek lañuy taxaw ci dëgg dong la ñuy taxaw sariya dong la ñuy taxaw sariya la ñuy taxaw ci sunna la ñuy taxaw boo ko seetee nee na boo ko seetee mbooloo mi li muy néew néew kon day ñun suñu mbooloo mi li muy néew néew nañ rafet njort ñun fu ñuy taxaw foofee ah nanu rafet njort suñu mbooloo mi taxaw na ca mbooloo moomee ndax suñu bokk réerul suñ kóllëre ruusul suñu cofeel tam mi ngi gën di yokk kon incha allah luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu amin luñ fi ñaan rek incha allah yal dana ko nangu nee na nañu ñaan yàlla yàlla yàlla di doolee dëgëral dolle noo booleeg mag ñu taxoo ak ñoom dolle noo booleeg mag ñettam ñu taxoo ak ñoom xam nga ni day nee na xam ngeen ni day man day amul solo moom day amul solo waaye waaye waaye alaaji Malick ni ma jege waaye alaaji Malick ni mu ko jege yàlla yàlla laa koy sant yàlla dong la koy sant ndax góor gaa ngi ni ndax kat góor gaa ngi nii góor gaa ko jox góor gaa ko jox te góor googu te góor googa góor gu caan ma ko jox góor gu ñu teewoon na ko jox xam nga loolu soriwul nee na loolu kon day silsila bi soriwul de soriwul dara de soriwul dara kon nag takkoo mag ñi rek takkoo ak mag ñi rek moo am solo moo am solo Baye Umar wax na ni Serigne Aline Masana woo. bu ko maam Serigne Aline Masana woo. nee na su ñëw rek. nee na moom su ma si yéexee ñëw rek. nee su ma dikkee. nee na su egsee. li may jëkk wax. li ko maam Serigne di jëkk wax. mu ni seytaane daal ma bari doole. mu ni ko daal seytaane daal Umar bari na doole. koo xam ni boo ko jegee jariñu. koo xam ni kat boo ko jegee jariñu. boo ko soree seytaane. boo ko soree kon seytaane la. te Serigne Aline bàyyiwul Serigne Umar dara. te nag maam Serigne Aline bàyyiwul benn secret bàyyi Umar. Hadj Malick nga xam ne bàyyiwul sëñ Aliou dara. li Seydil Hadj Malick xam ne bàyyiwul maam Serigne dara. nee na ko Aliou tey jox naa la ba amatu lu ma la jox. nee na ko Aliou jox naa la ba aw ma lu ma la joxati de. xanaa bàyyi la ak yàlla xanaa dama lay bàyyi yàlla rek. moo tax nag moo tax nag. léeg-léeg nga dajeeg ku jaawale. léeg-léeg nga dajeeg mbokk moo xam day jaawale. mbaa ku yëgul li xew. mbaa koo xam ne dafa yëgul la xew rek. li tax ma di ko wax. nee na li tax muy wax loolu. sama waxtaan ak benn mag. dafa mas di waxtaan ak benn mag. di waxtaan ci ci ci mag ñi. nee na ci mag ñi. li leen yàlla defaloon. li leen yàlla defaloon. nee na mag ma jékki-jékki ni ko. yéen da ngeen a sàggan rek. ndax pays bii waa ngiraan yéen di ko bind. yéen waroon na heure bi kenn ku ne ci yéen mënoon ko nag. nee na ree daal di koy jàpp moom. mu ne ko pays boobu day. yow duggal ci biir kër gi. gone gu ndaw gu sant ba goo jëkk tase. gone gu ndaw gu sant ba. boo xam ne jëkk nga tase ak moom. ne ko bu pays moom a tax a jóg rek. ne ko garab bu a tax rek. yaa ma koy bindal. yaa koy bindal. de yore àlluwa daa. su fekkee yor na àlluwa ak daa. day toog ci suuf. day toog suuf. bindal la ko bindal la ko jox la ko. nga dem sa yoon nga dem sa yoon mu dem yoonam. mu Muniko ahari muniko waw muniko sekere ni ko koy bindee jógewul ngiraan Serigne Bass Serigne Bassirou moo jege woon mamam moom la yalla dogalon mu jege mamam Serigne Aline dañ daan dem ak a ndax ñi ci dess ñep dañ dan dem ak ñew ñëw Serigne Bass mom demul won fenn fu dul jege su mamam la ye ku ne ci kër gi rek ñu ko Serigne Bass fi ne amul fenn fu muy dem amul fu Serigne Bass daan dem mom dal mamam la defoon tukki kayam mooy xëyam mooy ngontam amul fu ñu jëm nag ah, ah muy woo sëñ Bas rek di ko binduloo ba yëfi yàlla dogal mu féetee ak sëñ Bas. waaye nag mu ne ko nag da gis. waaye nag mu ne ko da ngay gisee. ngor gañu am ñoom. ngor gañu am ñoom. ku ñëw ci ma. ku ñëw ci Babacar. foo mën a fekk. soo foo ko man di fekk. boo ma nee garu pëy. soo ko waxee garu pëy si rek. man la buntu mun la demal ci buntu keur ge ñeessal ci ngiral lolu kat ci ngor la de loolu jafe sëriñ ci nee na foo loolu boo ko gisee bu nek and ben la rek waaye bu fekkon kenn ku ne ya nga séré sa allo ak sa da ak sa da di yërnu kuy fëgg kuy bindulu ki di jaare fee kay jaare fee kay jaare fële léegi nga dik ci fami boba ñol ñol am fa do nga koy war ndax do nga mo koy waral kat ci du ko jaar jaar ci du ko nak jar nag waaye koo taseel mel ni ko gar pëys ni ko bu fekkee mën na ko itam da lay wax demal ci sant ñee sant ngiraan rek nga dem fa ñu defaral la rek nee na léeg-léeg nit ni ñi ci des ci kër gi Serigne yar kon ak mag kon ñu nuyu ci di sant nee mi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla eggale mébét mii ci baax bokk ba boppam ndegam suñu néeg yi ndegam kat ñun ñëpp suñu néeg yi tabax la tabax di sukkandiku ci moom sukkandiku suñu borom waxatumaa na déegam bi bii moom duñ ko ci neexal bii moom duñ ko ci neexal de bii moom duñ ci neexal suñu borom de moom daal moo koy commencé moo koy eggaleel boppam nee na li bëgg ci biir néeg bi ñu ko ko fi defal yàlla na yàlla mottali yëpp amin nee na ñu ngi ñaanal Thierno ak Dame ndax ñoom ñaar ñoo fi ne ak jaboot bi waaye daal wax na sànq ni gërëm na ay doomam ndax kat li wér te wóor mooy am kilifa dong mooy li wóor nee na dang-dang ji nu dëkkee yëpp lu am def ci suñuy poos jox suñu kilifa yi di dang-dang ngir ñoom di dang-dang ngir ñoom ëpp maanaa. loolu moo ëpp maanaa. moo ëpp njariñ. moo ëpp tam njariñ. te loolu loolu ñun mooy sunu sunu tarbiya. loolu nun moo di sunu tarbiya. loolu moo moo mën a guddal loolu tam moo mën a guddal suñuy fan. te bu fan guddee rek yaram wér. te nag su fekkee yàlla may na la fanu gudd rek. say say yaram mën na wér. yaram mën naa wér nag. yaram mën naa wér. yaram mën naa wér. yaram mën naa wér. yaram mën naa wér. su fan yu guddee nag. diggante lekk ak naan moom. diggante lekk ak naan. lu ci nekk rek. lu ci nekk rek yàlla ah, moo ko gàddul boppam. yàlla moo ko gàddul boppam. kon daal Babacar mi ngi dolli ji ziar yëpp ñëpp. di balu ak bokk yëpp nag. ci jotaay bi nu toog léegi ginnaaw nag teg nañu xeer wi suñ delloo fee bu dul mën ci ay ñaan rek ñu def ko rek ngir suñu bopp nag ak jaboot gi yàlla dolli seen i sutura amin xale yii yàlla yàlla dolli seen kattan amin yàlla yàlla yëkkat seen pouvoir ak seen doole bu baax ba fexe ñu am ay dëkkandoo yu baax nag baax a baax dëkkandoo bu baax. ñi nga xam ne dañoo nekk ci jàkka yi. nee na nga xam ne dañoo nekk ci jàkka yi. yàlla daan wax naan na ngeen di faral di saxoo yàlla tiif. maam Serigne daana wax ne. ñi nekk ci jàkka yi dee leen faral di tudd yàlla tiifu. ñeenti téeméer. ñeenti téeméer. maanaam ñeenti junni. ñeenti junni. ak ñeenti téeméer. ak ñeent fukk ak ñeent. nee na nag kër gun koy saxoo ca kër ga kër ga du foom. que dëkk buñ koy saxoo di ko def tam du wéet waaye jàkk juñ koy saxoo di ñàkk mbooloo waaye jàkk juñ koy saxoo di def du ñàkk mbooloo kon bay bu ñëpp di ko def ci jàkka bu ñu teeralee wasifa daal moo xam fajar la gàtt gàtt rek. lu mu gàtt gàtt. nañ nañ nañ di séddale dog bi. nañ ko séddale mbooloo moo fa ne dog bi. bu dee timis nañ ko daal di séddale ndax mag ñi dafa am fu sukkandiku woon. ndax mag ñi dem di dox di dem rek. ndax am na fu daan teg seen tànk. kon nag ñun fexe bay teg suñu tànk foofa. tànk nag su fekkee amoo foo ko teg. benn nga daanu wala doo dem rek mag ñi tegoon seen tànk kon fa mag daan teg seeni i tànk waaw saxoo saxoo saxoo nag nag saxoo ñaan yooyu waaw waaw laa ilaha illa anta laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin di ko def téeméer ak ñaar fukk ak ñeent di ko def téeméer ak ñaar fukk ñeent masha Allah suba gu jot wala timis gu jot waxuma la ñi fi ne nee la sax ñi fi gi dama ko dikk sax njaboot gi dama daf leen di aar daf leen eh, am na solo lool te nag lu am solo la ñeenti junni quatre cent quarante téeméer ak ñeent fukk ak ñeent waaw quatre mille quatre cent quarante quatre waaw mooy kooku mooy dogu bu dee mbooloo la bu fekkee ne wàllu wërsëg la nag bu fekkee ne nag kuy ci kuy sàkk wërsëg la ci sa ci sa kër ci sa kër juróom-benn junni juróom-benn téeméer juróom-benn fukk ak juróom-benn alhamdulilah loolu daal mooy mooy secret bi كونك سيدي ماينا لين لولو ام جي تي ليغال واخ دارا جي توسور ني لين نانا دي نان واخ دارا جي توسور لين خل دوم ادم موي فاتو رك خل دوم ادم ادم موي فاتو رك واي انغا با فاري واي انغا با نوبي ني دال تال اتاي ني تال اتاي واخ دك يالا في خيمل لول واخ دك يالا دال في في في خيمل لول اك غوني سي اتاي نيمي ياغي اك غوني سي اتاي ليغي نيمي ياغي اك دوزيام اكوب دوزيام ام ترويزيام ترويزيام واخ دك ام دو خاجنا wallahi at dox xaj na fa de. waaye mel ni Pape Sall rek. waaye mel ni Pape Sall rek. bu amee gerte ci wetam bu fekkee gerte tegu na ci wetam. caqam caqam nii rek. commencé rek di ko taasi ni rek continué. ba ba ataay ji jeex. ba ataay ji jeex. loolu daal moom bokkul ci yëf yi. xel daal day xalaat di yokku. ne lu fa xaj rek nee na lu nekk la fa xaj rek moom daal dóor ko fa rek bàyyi buñ ko jéem ko faa dóor rek ñaari isib xaj na su dee sax ñaari isib xaj na daf ko fa rek latif yi xajee fa latif yi xajee daf ko fa loolu moo lay dimbali loolu moo lay dimbali fokk nañu taxaw ci loolu fokk nañu taxaw ci loolu ñu dellu ci li mag ñi nekkoon ñu delluwaat ci li mag ñi nekkoon lu ko mooy lu ko mooy nag dañuy jaaxle donc dañuy jaaxle de fu nañu dóor fa suñuy bopp fitna ju ne ñu ne fa te boobaa biri du sotti de kon daal Babacar mi ngi balu ak bokk yëpp ñu ko defee ñu dem bismillah mu ci bëggoon jël tuuti kàddu ginnaaw bi ñu sant yàlla ci li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax alhamdulillahi rabbil alamin sëñ Babacar xale yi man maay seen mag kon sañ naa delloo ngërëm sunu nijaay yi fi nekk te man seen doomu bàjjat naa mooy nijaay daam ak cer Cerno ñun dey war nañ cee jàng ci ànd gi ñu ànd ak nekk gi ñu nekk kooku nañ ci lu bu baax waaye sëñ kër yal na yàlla guddal saw fan mbooloo mi nekk fii dëkk yi fi nekk fii yëpp ba xelli dëkk yaa ngi nii bu ma tuddee bañ a fàtte kenn mais yëpp kontaan nañ commencé ko ci mbay bu ma nee mbay mi ak lëmbaale na ñëpp te bi ñu ñëw dafa am benn lu ma doon wax li nga waxoon sëñ Omar rek laa lay dëggal sëriñ Omar yàlla bun ko gaaw a xam xam nga lu tax nit bu wonee ginnaaw lañ koy xam mais sëñ Omar dafa nekk nit koo xam ne nitu yàlla piir euh, ana booy Njaay <coughs> dafa am benn nitu yàlla bi mu génnee àdduna kenn xamul fan la nekk ñu koy wër xamuñu ko ma ñëw ci señ Omar ne sëñ Omar maa ma ne ko ku ñuy wax Mor Ndiaye moo Mohayib day dafa génn àdduna te xamuñu bàmmeel hmm. li nga wax laa lay dëggal de. Hmm. moom pour wow musu ko dégg kon kooku ba mu faatoo génn na àdduna. Hmm. yàgg na. waaye maam sëñ Alioune ba moo ko faroon ñuy dem di dem di dem ba benn jour ma tëdd sama nekk soxna nelawuma nit ne ma pëkk-pëkk ne ma ki nga taseel boo tasee moom moo won la bàmmeel ba. maama laay bu ma waxul dëgg wax ma maama laay laa taseel mu ne maa xam baat ba sëñ Omar waxoon ne eh, ba du réer defe naa loolu dëggal gisuma ko yaa gis bàmmeel ba kon dëkk bii lii fi nekk muy jàkk nag nan ko tabax de waaye nag nanu ñëw ci jàkk ci de mais dem jàkkaa ji seeni baay nag wàcc nañu yéen muy ceer muy daam muy kummanti doon waxtu julli wi bu jotee nañ ko julli si fii man de yàlla xam na ne maa ngi woon Malem Hodar ca kaw asu yóbbu ma ko wax rek man ko suba maa ngi woon dem kër ma faa loo mënti jàpp dama koy bàyyi dem ci bis ba ndax ma ñun lii rek laa doon ñaan yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla sàmm leen sëñ bi yal na yàlla guddal saw fan alaaji taala bisu tey bii ku ci kolonel kontoon sëñ Aline baa ngi fi suñu maam Laba Jóob a ngi fi mm-hmm. waaye Baye Samba Law bee ngi fi mm-hmm. ah ak magi guy mbéy njaboot sëñ Mor aw njugu ñëpp ah, ñi ngi fi dëkk yi kon daal ñu ngi jégalu bu baax a baax moo jël kaddu ah. waaye nag bu ngeen gërëmee gone yi nag sañ naa leen jël delloo waat ah, te ngeen jërëjëf ngeen baal naa jërëjëf waaw incha allah ñaan yàlla yàlla ñu si del seen ndax dafa wax ni ci jàkka yi ngeen di ko def te fekk na noon ba na xàmmee ba tey am nañu dog bu ñu suñu kilifa bàyyee lool mënoon laaj ba xam bu fekkee dog boobu mën naa ko defu man ci sama biir kër ma saxal ko ci sama biir kër te bàyyi bu fi mag ñi nekkoon fekk ba fi mag ñi bàyyi woon foofu laaj doon laaje nga jox na ji foofu xalaat mm-hmm. ndax dañu dañoo joxoon juróom ñaar fukki jawhari gannaaw bu nu salmalee wasiwa ni fu ñëw ko defee day buur du fa taxaw nu koy def ba bu nu nekkee mbooloo def ko fanweer ak juróom te comme ba nu juddee ba tey di ko def kon suñu bëggee amaat beneen doog daanu laaj ba xam daanu koy continuer wala dañuy boole ñaari yëpp bu ma neexee benn bu nekk ko tax a jóg xam nga bee pour bi ma joxee léegi si bi ma léegi si pour mbooloo mi ñëw léegi léegi dog bi nga wax bi mag yi bàyyi woon su mbooloo mi ñëwee du leen aar macha allah dégg ji bu léegi dañu koy def ba mbooloo mi ñëw léegi dog boobu nag bu ñu ko defee nag mooy aar mbooloo la waaw mooy aar mbooloo kon leer na sa kër nag boo ko ay alquran waaw ah, nga yokk lim bi pour bi a jariñu waaw ah, kon euh, xeer wi ngi lay nuyu euh, xam sa tur Mbay Sall dëkk guy mbay waaw waaw euh, tey yéen ngi waajal li nga xam ne moo xeer wi ci lan nga yaakaar ne fi nga ne war nga ko ci liggéey waaw bu neexee suñu moom daal bu li ñu bëgg moom bu ko yàlla dogalee. bala ñu jël trosse jàmm daan leen daan ko daan ko immigré. daañu ko immigré. waaw bu solo mm, muy lu am solo daal. muy am solo waaw kon euh, kon daal euh, maanaam jàkka ji mën nañu xam ci yaatuwaayam ak tolluwaayam. waaw jàkka ji waaw 6 6 waaw 6 mètres ah, kon mbokk yi yéen a ngi waa Mbadiar TV ñu nekk fi nga xam ne tabaarakallah suñu. kër maam di ziar bu baax a baax kilifa diine yi nga xam ne euh, fekk nañ si leen ñoom itam lislaam salaamaaleykum sama baay ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam sëñ Ndiaye. Euh, mën nañu xam sa tur. Moustapha Seye. Serigne Moustapha bis bi nan la la defal ci wàllu jumaa bi nga jàkk bi nga xam yàlla nay juma bokk. amiin sant yàlla. Mm-hmm. di wax alhamdulilah rabbil alamina muy loo xamante ne yàgg nañ koo bëgg ci dëkk bi di ko xalaat di ko waxtaane te mu mel ne yombul woon waaye nag bi sama borom dogalee dig bi jot yàlla andi na eh, jëmm ju koy def sunu doom sunu doom jooju noo ngi koy sant di ko gërëm ak di ñaan ci yàlla sama borom ba barkeel ab yëngu doom barkeel yëngatu bu njaboot bi gépp sëñ Mbaye yow nag ñu ngi lay gërëm di la sant ndax eh, sa discours bëgg démb ne fii la fi dégg nga xam na nga def dàgg bu baax fii nga maam lislaam ba tudd dégg nga maam bëgg jàkk jàkk ji nañ ko tabax mel ne ne sa kàddu yooyee keroog sama ñaan nga nangu na nangu na bu baax a baax a baax a baax ñu ngi la ci sant di la ci gërëm bu baax di la sant rek yooyu kàddu moom dee ko faral di wax incha allah lu mel noonu wallaay dalal ci kaw loolu wallaay dëgg jërëjëf jërëjëf sëy kon tabarakallah gis ngeen liggéey bi ànd ak seen mbokkum taalibe Mbaye Ndiaye bu Mbadiar Baye Fall salaamaaleykum. waaleykum salaam Baye Mbaar yow ñu bëri xam nañ ci di la déglu ci rajo Louga dafa mel ne ki foo toll fii. ndeysaan ñoo ngi lay gërëm sëñ Mbaye. Mhm. di la sant di la ñaanal jàmm xéwal gudd fan. Mhm. di ñaan liggéey bi itam yàlla na ko suñu borom nangu. Mhm. ndax fii nu ne tey ci Kër Madoune. ñoo ngi fiy sanc defar néegub yàlla. kon yàlla na ci yàlla jàpp. ñu yàgg koo teewe yàgg ko fekke yàgg koo jariñoo ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yow itam sëñ bay comme li ma la daax rek yow itam di koy pousa nga yor rek kon yal na yàlla guddal sa fan amiin yokk say xéewal amiin ñi defar liggéey bi itam yal na leen yàlla may kartan buñ ko àggalee wallaay ndeysaan te lépp luñ ci liggéey yal na ko Seydina Muhammad man jërëjëf jërëjëf amin amin amin kon daal Impaañ tey kontaan nga. kontaan naa ci bis bu megi bi. bis bi lan la la fàttali tey. ndax feer mi fi nekk daam daam Jóob mhm. Alioune Jóob moo fi nekkoon mhm. ko mhm. def ko kilifa gi Làbba Jóob bëgg waa këram ni bëgg ñëpp waa guy mbay sàll ñu ne kenn mu leen a fay yàlla nañ yàlla ba mu def jumaa amin amin amin amin ndax yow lu baax ngay wax lu baax ngay def mën ngaa boole bokk kuy boole bokk di ko yokk nag yal na la yàlla yàlla yokk amiin amiin amiin mbay yaa baax yaa gore maanaam kontaan nga daal waaye des yow comme yaay kilifa gi yaa sañ a sant sant gannaaw njaboot gi def na ko ma fekk ma fekk mooy dund sama xol sedd na ko yooyu tam yàlla na yàlla bàyyi la fi wax dëgg yàlla lépp ci sa ay la sant rek ñaanalal xale yi rek ak mag ñi ak tund bi yëpp waaw tund bi yëpp ñëpp ñëpp kontaan mais sant rek danga nga fi yàgg de incha allah da nga fi yàgg waaw da nga fi yàgg incha allah jërëjëf ma Jóob yéen a gis laax bi de macha allah tey njóobeen yi de ah wax dëgg yàlla kontaan nañ lool lool lool lool wax dëgg yàlla macha allah ah wërsëg wi yàlla gën a yàq waa daam yaa ngi koy xool ah waaw ndeysaan chut mais li aasi lekk tey bay bu ngeen fay ko waaw nga ne yow yaay ma ko xale yi soxna yow yaay magu xale yi bisbi bi nan nga ko gisee. ah kontaan rek ci bis bi. kontaan sama rakk rek. di leen sant. di leen gërëm di leen sikil bu dul laax bi taxul laax bi ci lekk. di leen sant leen gërëm di leen ñaanal yàlla. kontaan ci ñoom lu bare bëri. yal na leen yàlla may gudd fan ak wér ak njaboot bu barkeel gu leen gaan lii ñuy def yal nañ dund ba am njaboot gu leen ko fay. amiin ñaari papa yi ñu xam ne moom lañ dese nag. yal nañ fi yàgg ak téwér. ak sunu yaay yi. yal nañ dund bañ leen di yóbbu yoon mag. amin amin amin leen ndox mi. kon nag tabaarakallaahu suñu sang yee nu yàgg fi ma nag asi ñoom ak gars yi ah. kon tabaarakallaahu ñëw kontaan waaw waaw laaxi de ndeysaan ci metti daam Pape Diop euh, ak Thier dañu xaw dañu xaw a sakkan nag ku lim fi ngeen fi ziar bu baax a baax. yaakaar naa ne yow euh, kontaan nga bu baax a baax ndax suñ mbokki njóobeen ni tey macha allah waaw waaw kii très bien ndax gars yi bu ñu duggee ci groupe bi man laa yónnee xaalis bu bëree bëri. noo gisee bis bi tey. ah bis bi day kontaan ci bis bi rek. kar macha allah nag kër Madou Penda nag. Mhm. sunu maam dëkkoon fi ak sunu yaay dëkkoon fi ba xëy ñëw kër Ibra. Mhm. macha allah ñu nekk fi nag di doxal lii nag ba nëgëni. Mhm. kon nag yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def xéewal. yal nañ fi def ay jumaay jumaa. ñun ñëpp ñu fekk kenn bañ ñoo nett li suñu a kontaan nañ kon euh, bu nga ko gisee nag euh, suñu mbokk yi seen taxawaay bu rafet gis nga. Njóobeen nii mën a lekk laax ah, samay impaañ maa ngi lay nuyu tey wax dëgg yàlla dañ lay ñaanal ndey tey buñ tuddee mag ci kër gi tey wax dëgg yàlla eh, yow yaay mag. ñu ngi lay nuyu fàttali ñu sa la Ndeye Fall. soxna bis bu tedd bii nga xam ne wax dëgg yàlla xale yi taxaw nañ taxawaayu eh, tax fës nga fee taxawal néegu yàlla ah, nan nga gisee bis bi tey. sant yàlla rek di julli ci Seydina Mohamed li de man yàggoon naa ko bëgg lool. Mhm. maag pël ngay do yaay kii. kon mhm. ma daan toog. Mhm. maa ngi moom. dañ ko daan waxtaane rek. waaye nag bëgg-bëgg. ak dogalu sunu borom ba tey la ko yàlla dogal. sama sama sama goro Kumba jangan Faal. li rek la daan ñu sër. daana dem guy mbay de. dana dem guy mbay aljuma daw ko daw ko raw. mo tay ma nga guy mbay àjjuma ju dana dem. man na xam naa mënuma la man mhm. waaye nag lam bëggoon ba tey bëgg naa ko mhm. lu baax lam bëggoon mhm. ba tey bëgg naa ko may sant yàlla nag di julli ci Seydina Mohamed sangi-sangi yi ñaanal di ñaanal suñu borom kër yi yal na yàlla suñu moom jàpp neen bàyyi leen fi ñu dund dund dund ba gone ñu dund ba ñeme ba ba ba yàgg fi lool ba am ay téeméeri at ba gunge leen ñeme waaw bañ gën a ñeme fal ngay doot Mm-hmm. ma nga fee waaye mm-hmm. noo nu danoo yàgg mm-hmm. ak ngoom jaay ak Aysa mi Aysa ndeysaan yal na yàlla sunu borom defal ko ba mu dellu si amiin amiin amiin yàlla mën na ko am na ko te na ko te saa bu ma jullee maa ngi koy ñaan ndax dan daan ànd bu bu ma jëkkee kenn daan ma yow dangaa yeex ñëwoon nu dem ñuy dem kër ma ànd di dem ak dikk kon man fa yu mujj gis nañ tey waa kër Mante yi nekk fi ak waa sunu mbokk yi sant sal kër Ibra yi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu àndoon nekk tund wi ñu ay guy mbéy dëkk yëpp lëndëmaan ñu ngi fi teew. waaw loolu bi bi ñu sant yàlla julli sëy naa mu. ñoom Mbar ñoom ñëpp a ngi fi. bëgg mbokk lool. Mm, mm, mm. kër ba kër lool. ba kër kër ma Anta guy mbéy si wala kër ñëpp a ngi fi. Mhm. te dañ koo dañ dañ koo cof sax. Mhm. yàlla xam na ko ne dañ koo cof. Mhm. te buñ ko coful woon du demee nii sax. dañoo jékki-jékki keroog ajjuma la yàlla dogal ñu ñu ñu mu tase mbay gay nii ñu wax ko ñu ni leen sëñ bay mee mu daal di koy woo ci portable ndongo mu ne ko talaata de ci ñetti fan yi buñ ko manee baax na mu delluyaat dem ci sëñ bay gay mee mun ka ah, talaata de moom ak rafet baxna lol ñu daal di ci continuer non xam nga bo ñaari fan dong la motax mu neesu ko publicité la kon dañ koy dañ koy dañ koy wax ba ñu bari ba ñepp yëg waaw ba ñepp yëg est ce que du njóobe ni dañu bëggoon lek laax bi ñoom dong nak ak ñi sant sal càlleen yi nak <laughs> ay ñu ci laax bi nak dafa am dafa am dal yi fi jaawarloo xamuñu ko sant sal ko mom wala ko sant jobo ko mom nak <laughs> ah mun na am nag ah waaw mi ngoog de ah nee na ko sant mbeña ah. <laughs> waaw jere jere kontaan nañ ci yeen ñun jere baat yéen kontaan nañ wax tak yalla xale yi ci yi nga xam ne nii Thierno suñu borom jàppale leen ba dundaat ba yàlla ñu mën a am fii ñaari néeg ah waaw man sax fi laay nawet si ren koy ñaan bu ko yàlla dogalee te dogalam ba yàlla na dund ba dëkk bi wettiliku waaw amin amin dana wettiliku dana wettiliku sëñ bi li sëñ sëñ mbay ba sëñ mbay ba ñaan gi mu ñaan mm. ñaanal dëkk bi rek ci barke maamam yàlla dina nangu loolu incha ah, allah waaw baax jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax binu nu nak dañu jang alquranu karim wax yàlla subhanahu wa taala di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal ñu jami àdduna ak jami alakhir bis bi di keur Madou nek département kmr nek ci commune bandagne arrondissement bu di ñetti fan tabarakallah kon ci digi tebeski ki fan ak ñett ci mois de mai 2023 kon dal mi ngi ni yalla yalla fu ñu jami àdduna Mbadiar TV Mbadiar TV seet seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 dal ci kaw ca kanam abonné te bés kolos bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Madiar TV daal émission Mbaj Mbawoor ca kaw ca